Senewood TV jàmbaar ku say di jàmbaar doo daw xare. asalaamaaleykum mbokk internet yi nga xam ne ñoo safoo seen site bu mag bi nga xam ne mooy Senewood TV Senewood TV nag tey dafa ñëw nga xam mooy diwaanu Pikine tali bu bees ñëw ci si bu mag bi nga xam mooy Comet Pro. tey nee naa la comme ni ko baaxoo di ko defee tous les jours te dañoo am invité de marque dañoo am ndaanaan ku li invité nag artiste bu mag ndax nee la doomi mbër jàngil bëri yàgg yàgg lees na la masa ñam ba tax na picc bu juddoo ci ci taax bu naawul jaaxali ay mbokkam tey nag dañoo invité doomi ndaanaan doomi Doudou Alaaji Doudou Ndiaye Mbengue Doudou Ndiaye Mbengue ko présenté nag ndax nee naa la kooku l'enfant chéri des Parcelles Assainies la kenn dootu ko présenté ci Sénégal ndax tey nee naa la émission bi xaar leen dina neexee nu ne ndax dina neex ba dugg peex papa nag nan ngay nuyoo waa Sénégal comme da nga ne doomi ndaanaan billaay nuyoo cabi teranga la ndeysaan waa réew mi nuyoo cabi teranga la waaw waaw waaw Papa Mbengue jarul laaj ndax boo Papa Mbengue Mbengue bi war ngaa xalaat fa la war a jóge Papa Mbengue bu Dunjaay Mbengue Papa Mbengue bu asalam papa Mbengue ba Parcelles papa Mbengue bu Sénégal da papa Mbengue mi euh, ndaysaan ba ma njëkk a way sama papa daf ma tere sumb laa njëkk way way naa sumb bu ne waaw way naa làng bu ne papa Mbengue day way si bongo papa Mbengue day way takk mariage laabaan tuur loo woo ma way ci laa dooree ak sumb kon nag boo mu invité émission bi ma koy suivre di ko déglu gars yi euh, muy def internet bi naka su dul noonu kon émission bi boo ma ci wooyee mu ñëw xam naa ban façon émission la xam naa fu mu lay yóbbu xam naa ñu koy bëgg ak ñu ko bëggul ak ñu koy seetaan ak àdduna bu yëpp émission bi daf leen intéressé looloo waral sama teewaay Papa Mbengue daal tey fii mm-hmm. ah am nga problème de. waaw dégg nga ko nee am na problème waaye dina xam ñun waa Senewood TV dañoo paree fu ne. way baa ngi fii talent baa nga fi comme yaa ngi woo producteurs yi ba tax na producteur yi nee naa lu ñu gisul rek dëgg neexu mun cee dugal seen xaalis comme da di doomi ndaanaan nag sa nuyoo gis nañ ko dan ngay may producteurs yi comme ça bu ñu la gisee xel dal tamit. jàmbaare yi jàmbaar Senewood TV jàmbaar ku say di jàmbaar doo kenn gënu la asla ko fi gënul gën laa dal la ko yare Wassoumi 8 TV gënul la fekk waaw waaw yaa rafet jukko Wassoumi 8 TV xama dang ko juddu waale dal la ko yare Wassoumi 8 TV yaa rafet jukko ndeysaan waaw dëgg kontan rek di bëggee waa Seneweb TV da xam ne émission bi ñëpp a ngi koy déglu ñëpp a ngi koy seetaan waaw da xam ne euh, di wax naan artistes ñëw leen gaaw émission bi am na fu mu lay yóbbu de part dans le monde noo koy seetaan adduna noo koy seetaan papaam bëgg nga ngi rek man ko ma soxla si xew ba ma woowee 77 057 55 11 man dañoo woy la ba mu baax. dix 77 057 55 11 bu dee Togo bi la nga def 121 11 11 Togo bi nga def cent vingt 121 11 11 Papa Mbengue ngi rek waaw dëgg neexu da xarit ñëpp. Mbégal ndeysaan def na ko yëfu géwal nee na ko ko soxla rek nga xam ne joxe na ko waaye papa ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax man astama toogoon fii tey di leen présenté papa Meng ma xam ne mooy doomu alaaji Doudou Ndiaye Meng mi ci Sénégal ba tax na ci xam mooy Senewood TV waa dinaa la Senewood TV mooy site bi nga xam ne moom mujjee judd gën a neex ku masal jamono ku nekk tubaarkaala na nga ko bàyyi xel ndax nee naa la ñoo ngi ñëw yëngal gësam ñun def xaar ñu kenn dañuy dem lépp li nga xam nag mooy information à temps réel lépp nga xam ne mooy people lépp li nga xam mooy divertissement xaar leen ko ci Senewood TV ndax nee naa la ñun rek la du feneen fi jàmbaare yi jàmbaar Senewood TV jàmbaar ku say di jàmbaar doo xare